الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu xam ngeen ne ñoo ngi ci Shaaban mu des ay waxtu yu ndaw rekk weeru koor daal di teru waaye mbokk jullit yi ab jullit weeru kooram du mën a baax fekk préparé wu ko ci Shaaban feek waajalu ko ci weeru baraxlu li ëpp ci ñun danañ woor weeru koor danañ ko fekke waaye duñu ci jëriñu lu tax ndax méthode bi jullit di jëriñoo ci weeru koor programme bi jullit di teg ba kooram baax weeru kooram baax ñun dañ ko dul def looloo tax ñuy dugg ci weeru koor di ci génn looloo tax ñuy fekke koor te duñu jëriñu du hasard doomu ndey yi ki yàlla yónni woon ci jaam ñi daa di wax waxam ju doy waar ja moom yonent alayhi salaatu wasalaam mu ne raxima an fun raxima an fumriin summa raxima an fumriin summa raxima an fumriin yonent bi dafa toog di waxtaan ak saxaaba yi ba càgg rek mu ne waay waay kii waay alku na waay waay waay ku alkoo ngi nii waay waay ku alkoo ngi nii sahabatul kiram ñu daal di tontu ndeysaan ndax ñoom bugguñu bokk ci ñu alku qaala sahaba xaaba wa xasira ya rasulallah man huwa ki ngay wax de xamuñu kan la waaye perte na torox na àllaaxira ko kan la qaala alxabibu muhammad sallallahu alayhi wa sallam man adraka ramadan wa lam yaxfiru llahu la ki fekke weeru koor te yàlla baalu ko kooku torox na kooku yàqu na lu tax mooy waa ji dafa préparé wul tey bu doon ab jàngalekat la buy dugg classe du ñëw rek jàppale téere yi commencé jàngale dañ koy jox benn programme bu tudd tawsiu sanawi programme annuel bi li année at bi lii ngay jàngale mi ngi nii suñ ko joxee programme mu annuel bi ba mu jeex ñu jox ko tawsiu sahri li ngay jàngale par weer suñ ko joxee tawsi u shahri ñu jox ko barnaamij istimaalul awqaat emploi de temps temps bi noo koy gérer noo koy jàngalee huit heures ba midi noo loo fi jàngalee trois heures ba six heures looy jàngalee maanaam doomu aadama dundam foog mu planifier ko ci saabaan ngay planifier sa koor il faut nga teg benn barnaamij amali al an hatta ramadan benn programme boo xam ne léegi nga koy rëdd ci sa biir nekk yaag sa borom léegi ngay programmer def emploi de temps sa diggante ak sa borom ana lan nga fi defal sa borom fii ak weeru koor su weeru koor ñëwee lan moo war a nekk sa programme waaye dee maintenant ngay préparé lan yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na assalawaatul xams julli juróom mbokk yi julli juróom ki woor weeru koor te du julli ji wala muy julli du julli julli juróom kooku ngeen jàpp ne bu weeru koor jeexee dana mel ni koor bëgg abadan waaye lan moo tax waa ji mënta julli julli yi juróom c'est parce que préparé wul xamul koor di ñëw ci moom lan la ko indil yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ahabul amali ila allah assalaatu ala waqtiha أحب الأعمال إلى الله أحب الأعمال إلى الله jëf yi yi jullit di def li ci yàlla gën a bëgg kon loolu jullit bi war na cee sonn yow li ngay def yépp li ci yàlla gën a bëgg mooy assalaatu ala waqtiha mooy ngay julli ci waxtu wi waxuñu nga julli rek ne dañu ne nga julli kañ ci waxtu wi kon boo wooree lu ñuy njëkk a sàkk ci yow mooy julli yi juróom nga respecté ko waaye na nga ko julli ci waxtu wi da ngay gis fi ku yendoo woor ba ngoon mu ne xaaral ma fay kooku kooram lan la koy jëriñ moo tax du hasard mbokk yi yonent bi ne ruba saa'imin fa laysa lahu min siyaamihi illa al juu wal atash yonent bi nee na bëri na ku woor suba ba ngoon jëlewu ci lu dul xiif ak mar kon woorul assalawaatul xams ñaareel mooy julli fukki rakk ak ñaar bés bu nekk pour sa koor baax foog nga tàmm balaa koor ñëw julli fukki rakk ak ñaar ci journée bi yëpp ci 24 heures bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ma min muslim yusalli lillahi fi kulli yawmin isna ashara raka tatawwan غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة yonent bi nee na amul benn jullit buy julli ci bis bi fukki rakk ak ñaar yoo xam ne moom moo ko volontaire du farata lu dul waajooju julli fukki rakk ak ñaar yàlla dina ko tabaxal kër aljanna balaa tisbaar ñaari rakk après tisbaar ñaari rakk balaa tàkkusaan ñeenti rakk boo jullee timis ba pare ñaari rakk boo jullee gee avant gee ñaari rakk ginnaaw gee ñaari rakk ak rakk yi ngay na soo ko ko boole ci bis bi mu nekk fukki rakk ak ñaar yoo xam ne yaa ngi ko tàmm volontaire est-ce que kon kooku tàmm loolu julli ji naafila dina ko sonal waaye ki tàmmul julli julli yu bari yi su koor ñëwee day sonn xoolal ñun ni ñuy préparé koor mooy ci lekk fi mu nekk ni ñu bëri préparé nañ seen ration waaw dem nañ ca borom magasin yi nag ma dencal ceeb nag ma dencal suukar dencal ma warga dencal ma nangam dencal ma nangam commencé nañ sax wër fan la tàndarma mu tooy di jaay laa ilaha illallah lekk rek ñu ngi préparé amma li tax yàlla jéggal ñu ak li tax koor jóg yàlla bu muy wax woor leen lan moo tax mu wax ñu ko wa an tasuumu xayrun lakum in kuntum taalamuun yàlla mu ne ngeen woor moo gën ci yéen bu ngeen xamoon waaye ñun xamuñ mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala yonent bi nee na ku julli loolu yàlla dina la tabaxal kër aljanna sunu ju sunu jaamu yàlla yi ñuy def yëpp lan lañ ci bëgg aljanna kese julli yëpp aljanna tax jàng quraan dem jàkka jàpp lépp lu ñuy def rek liñ ci bëgg rek mooy yàlla gërëm nu fay nu dugal nu aljanna waaye yonent bu nu waxee bu ngeen defee lii du ko aljanna fi mu nekk nii su président de la république waxoon tey ci télé bi ku def nangam ak nangam dinaa la may benn terrain 15 sur 10 fële ca Nord Foire wala fële ci Védène wala fële ci corniche bi wala fële ca Mamel lu ngeen jàpp billahi wallahi taalahi fa mu wax lañ koy defee xeex moo fay am nit ñi dinañ fa yóbbu ay cours dinañ dóorante ku nekk di nga ne def naa ko pour lan pour nga am benn 15 sur 10 waaye yonent moom lan la wax bana allahu lahu baytan fil janna te président waxam mën naa tegeeku de parce que gis nañ fi maa waxoon waxeet amma rasul sallallahu alayhi wa sallam maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun du wax lu ko neex parce que yàlla moo signé ci làmmiñ bi daal di ciy def tampon signature bi mooy lan mooy maa yantiqu anil hawa lan mooy cachet bi mooy in huwa illa wahyun yuha lu mu wax rek yàlla moo ko wax kon kooku du wax di waxaat ixwatal iman pour sa saabaan pour sa ramadaan baax sa saabaan mooy nga préparer qiyaamul layl ku munta taxaw léegi doo taxaw koor ndax li la jàpp ba taxawoo tey moo lay jàpp ba doo taxaw koor yonent alayhi salaatu wasalaam nee na lu lu nit dee dee dee loo yaafuus yaafuus waaja léegi pour lan pour nga mën a nekk bokk ci ñi taxaw julli guddi donte ne ñaari rakk la donte ne ñaari rakk rakk yooyu fexeel rakk bu nekk jàngal téeméeri aaya aw juz min alquran li takuna min alqanitin inda rabbil alamin fexeel nga julli guddi donte ne ñaari rakk la ñaari rakk yooyu boo mokkalee quran fexeel rakk bu nekk nekk téeméeri aaya soo mokkul fexeel nga jàng juzu wala nga jàng lenn ci quran lu tax pour nga bokk ci ñooñu yàlla tagg ne ñooñu dañuy taxaw aana alleyli wa atrafa nahar dañuy taxaw guddi ak bëccëg di jaamu yàlla tabaraka wa taala pour nga bokk ci ñooñu nga xam ne ñooy taxawul yàlla ñeenteel ixwatal iman mooy qiraa juz'u min al quran foog ñu tàmmal sunu bopp léegi jàng quran saa yi ñu yeewoo benn juz'u kulla yawmin ngir sunu xol yi mën a laab ngir sunu bàkkaar yi mën a set ngir yërmande yàlla mën a wàcc ci ñun ku jàngul alquran tey doo ko jàng suba ku programme wul di jàng alquran tey demee naa saabaan su weeru koor ñëwee da nga teel a yeewu lan moo lay yee xëdd di nga dem jàkka de parce que rus nga tëddaat waaye yàkkamti nga lu ilimaan naan asalaamaaleykum ba nga daw ñëw tëdd doo jàng alquran mukk abadan parce que tàmmoo ko woon ixwaan yi ñeenteel mooy tàmmalal sa bopp léegi tudd yàlla sa calendrier buy tax sa weeru koor baax boole ci tudd yàlla tabaraka wa taala wa min fawaidi zikrillah annahu sabab an yazkuruka allah qala taala fazkuruni azkurukum mbokk yi lan moo gën a neex lan moo gën a baax lu gën a rafet yow nga nekk ci suuf di tudd turu yàlla borom bi tabaraka wa taala nekk malakal ala di di la tudd yow ndax mën nga am ku gën a màgg yàlla ku la tudd mën nga am ci àdduna ku gën a màgg ku la tudd sa tur ku raw yàlla yàlla nee na sooy tudd sama tur maa ngi tudd sa tur sa tur kon fazkuruni azkurukum wa wasaana al mawla borom bi dénk nanu azza wa jal an kasarati zikr pour ñu tudd yàlla lu bari waaye bu ñu tuddul tàmm bu ñu tàmmul tudd yàlla léegi sunu saabaan bu ñëwee dunu tudd yàlla borom bi ne yaa ayuha alladina amanu zkuru llaha zikran kasira wa sabbihuhu bukratan wa asila yéen ñi gëm yàlla tudd leen yàlla lu baree bari zikran kathira mu ne sàbbal leen ko bukuratan wa asila suba ak ngoon ndeke kon weeru koor pour mu baax foog ab julit teg benn barnaamij benn emploi de temps boo xam ne day programme waxtu yi waaye tey la koy tàmbalee ndax su weeru koor su saabaan jeexee rek weeru koor kole ci yëf yi daal di tàmbali daal di dem waaye boo toogee ba weeru koor ñëw seytaane dina la fëkk nga jaxasoo doo mun a waaj parce que waajoo tukki sax booy tukki di nga waaj hatta bu fekkoon ne tukki bi suba la tey jii ngay tàmbali waaj ci guddi gi wala ci ngoonu léegi ngay tàmbali lu mel ne kon nag weeru koor di ñëw ab julit na ko waaj depuis léegi wàccaay li nag mooy mu teg programme bii tax ruuxam dund bii tax ruuxam set bii tax ruuxam egg ci yàlla tabaraka wa taala bii tax koor gi mu jeex bu jeexee mu mun a am diplôme boobu yàlla di joxe ci weeru koor bu tudd taqwa xam ngeen ne koor li muy rëy rëy rëy rëy yàlla dafa bëgg rek boo ciy génn nga am ragal yàlla tabaraka wa taala nga tàmm ko boroom xam-xam yi ne weeru koor dafa ñëw pour yar ñu ni nga nekkee ab jullit nga mën a nekk ku mayul yàlla lekkoo naanoo sëyoo defoo fi lenn luñ la tere diggante fajar fi ñu nodde salaatu ba timis di jot defoo fi benn bakkaar nga tàmm loolu tàmm loolu tàmm loolu ba bu weeru koor gi jeexee nga mën a lang ci jaamu yàlla tabaraka wa taala aqulu ma tasmaun wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخوة الإيمان bu fekkee ne da nga bëgg a jariñu ci weeru koor jëlal ndénkaane yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu dénkoon Muaz ibnu Jabal radiyallahu anhu wa arda yonent bi wax na Muaz wala Muaz moo laaj yonent bi mu ne qultu ya rasulallah awsini yonent dénk ma awsini ya rasulallah dénk ma qaala yonent bi ne ko alayka bi taqwallahi mastata'ta ragalal yàlla loo mën jéemal sa digganteeg sa borom nga def ci kiiraay boo xam ne day tax nga ragal ko te mooy day jëfe santaane yi bàyyi tere yi mastataat wazkuru llaha inda kulli xajarin wa shajar sa làmmiñ bi foo nekk del tudd yàlla garab goo toog xeer boo toog tuddal yàlla tabaraka wa taala fun la fekk sa làmmiñ bi na tàmm tudd yàlla ci garab la ci xeer la tuddal yàlla tabaraka wa taala mu ne ko wa ma amilta min suu fa ahdis la tawbatu sirri bi sirr wal alaniya bil alaniya moaz lépp loo mën a defati ci lu bon jamono ji nga ko defee moo xam dafa feeñ moo xam dafa nëbbu soo nëbboo def lu bon nëbbul def lu baax soo feeñee def lu bon feeñal def lu baax yenent bi loolu la dénkoon Muaz ragaleel yàlla loo mën tuddal yàlla foo nekk saa yoo nëbboo tooñ yàlla nëbbul jaamu ko saa yoo feeñee ci kanamu nit ñi mooy yàlla taxawal ci kanamu nit ñi jaamu yàlla tabaraka wa taala ixwat aliman fa zikru llah kasir bi azkari alsabahi walmasa walistigfari walsala ala annabi nanu góorgóorlu ci tudd yàlla yor programme bu ñuy tuddee yàlla ci suba ngoon de maintenant boo jullee ba pare tàmmal tudd yàlla góorgóorlu nga def say azkar suba su ngoon jotee nga def ko jullil ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu bëree bëri jéggalul borom bi tabaraka wa taala say bakkaar bëri lal salaam min laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir mbokk yi defal ci sa programme jéggalu sa borom jéggalu say wayjur defal ci sa programme weer koor jéggalu say way jur bu ñu fàttee ndey ak baay yàlla moo leen dénkaane wa wasayna al insaana bi walidayhi yàlla nee na maa la dénk sa ndey ak sa baay ab julit lépp lu muy def ci lu baax ndeyam ak baayam ñoo ci war a jiitu moo tax yàlla tabaraka wa taala mu ne wa saahibhuma fi dunya maaruf na nga ànd ak ñoom ci njëkk na nga ànd ak moom ci lu baax mais gis ngeen tey sunu génération ay nit yuy dóor seeni baay ay nit yuy saaga seeni baay ay nit yuy xas seeni baay ay nit yuy yenu seeni baay ba ci kaw sax dóor ci suuf dañoo am benn mbokk dëkkandoo boo xam ne dafa xuloog papaam ay at mën na am sax benn bis ñëw na mu nàccal papa ji almuhimu papa ji bi mu nàccee nit ñi daw di àtte mook papa ji papa ji ne def maa mbëkkal miir bi mu ne ko mbëkkaluma la miir bi waaye papa ji nàcc na mook papa ji ñu meroo ba papa ji dee tudd tuddantewuñ ñoom ñaar tuddantewuñ kenn tuddul sa morom waa ji nekk ci ay tolof tolof ginnaaw góor gi bu mu génnee àdduna ay jafe-jafe yu dul jeex bu mu génn dugg ci beneen bu gën a metti sa morom nga ni bii la bu mu génn ci jafe-jafe rek dugg ci bu gën a metti penkook sow ndeyjoor ak càmmoñ ku xam ku xamul ku am ku amul fépp lay dem di ut ndimbal pour lu ko dimbali pour mu génn ci jafe-jafe yooyu waaye day ba léegi génnul ci jafe-jafe yi waa ji am na soxna soxna si ne ko diw tee ngaa dem jégalu ji sa papa mu ne ko dégg naa ko mu continuer ci at yi mu gën a bëri gën a métti benn bis problème yi gën a métti soxna si jooy na ko tee ngaa dem jégalu ji sa papa mu sol dàllam jëm armée li Pikine mu yegg si dugg jëm fa ñu suul góor gi mënatul xàmme armeel bi mu war deux heures de temps pour gis armeel bi mënu ko gis ba mu naaj ba tisbaar di waaj a jot mu ne xaaral ma dem kër diw fii ci wetu armeel yi moom xamoon bi ñuy fe bi ñuy suul góor gi fekke woon na ko su ma demee ma jàpp foofu julli après ma laaj leen dinañ ma tegtal am ku ma àndal sax wala ju tegtal ma fan lañ suul góor gi ma ñëw bi mu demee foofu ñu ne ko yow doxe nga naaj mais damaa ñëwoon ci armeel yi ziyaare góor gi waaye armeel bi daf maa réer benn waaye ne ko ah toogal suñ añee ba pare ba julli ma yóbbu la man vendredi bu nekk dinaa fa dem añ jot ñu añ ba pare ñoom ñaar ñu daal di jàpp daal di julli ñu génn utali armée li te waa ji waxoon na ko vendredi bu nekk man dinaa fa daanaa fa dem bu ma ziyaaree sama papa ba pare daanaa jaar ci moom ziyaare ko comme ay mbokk lañ añ nañ ba pare julli nañ tisbaar jubal si nañ ci armée li ñu dugg waaja ca boppam armée bi daal di koy réer ñoom ñaar ñëpp armée li réer leen armée bi réer leen mënuñu koo gis loolu lu muy tekki mooy góor gee ko baalul góor gi la ko yàlla meree ba mun ta taxaw ci armeelam ne ko papa baal ma parce que jëflante wu woon ak góor gi jëflante bu baax ab julit bu nàccal baayam moo xam yaa ko tey moo xam teyoo ko dafa jaaduwut lan lañu alquran wax sunu borom subhanahu wa taala bi mu ñuy dénk sunuy waajur lan lañu wax wa qada rabbuka alla taabudu illa iyah wa bilwalidaini ihsana imma yablughanna indaka alkibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima du loolu la yàlla wax ndénkaane boobu ban ndénkaane moo ko gën a rëy mu ne wax fit lahuma janaha zilli min arrahma tey nag ñun xamatuñu suñuy ndey ak suñuy baay da ngay gis ku bàyyi bàmmeelu baayam di tabax bàmmeelu baayu keneen da ngay gis ku waroon ormal baayam ormal beneen baay da ngay gis kuy nuyu baayam benn loxo di nuyu keneen ñaari loxo da ngay gis kuy raamal baayu keneen bàyyi sa baay da ngay gis kuy jaamu baayu jaamur bàyyi sa baay te yàlla bàyyi la dénkaane sa bàyyi la dénkaane sa bàyyi la la dénk benn tubaab ci France bu jigéen dafa am doom bu góor benn bis rek mu jàpp ci loxo bi ñëw ba ci buntu jumaa ji mu ne doom ji duggal fii boo demee nga ni ilimaan bi sama yaay nee na nga jàngal ma sa diine ilimaan bi fi mu toog di waxtaan ak nit ñi rek benn xale dugg daal di nuyoo ñu fay ko mu ne ana imaam bi ñu ne mu ngi nii mu ne sama yaay moo ma yónni mu ne lu mu wax mu ne sama yaay nee na nga jàngal ma sa diine ah mu ne ko est-ce que jullit nga mu ne déedéet mu ne ana sa yaay mu ne mu ngi taxaw fële ci wetu tali bi limaan bi génn xool gis soxna si taxaw fële mu taalal ko loxo mu traversé tali bi ñëw taxaw mu ne ko ku jur kii mu ne maa ko jur mu ne loo ko yónni mu ne damaa bëgg nga jàngal ko sa diine yow mu ne lu tax mu ne ndax damay bañ bu ma màggetee mu yóbbu ma maison de retraite ndax jullit yi ñoom bu seen ndey ak seen baay màggetee dañ koy bàyyi ci kër gi di ko jox mu lekk di ko jox mu naan di ko toppatoo ñun nag tubaab yi bu sunu ndey màggetee wala sunu baay dañ koy yóbbu maison de retraite te bëgguma sama doom ji yóbbu ma maison de retraite loolu mooy lislaam lislaam a ngi ni mbokk yi ak a neexoon ñu xam ko ak a neexoon ñu dund lim nu indil waaye tey li tax jullit yi du ñu jëriñu ci lislaam ci xew-xew yii di ñëw ci sunu kanam ak yu mel ni ñoom mooy jullit ñi dañuy làmbatu jullit yi ay taxankatu guddi lañ xamuñu mission bi leen yonent bi indiloon xamuñu lan moo tax Qur'an jóg xamuñu lan mooy diine xamuñu diine ban place ban importance la am ci dund gii nuy dund gis ngeen Sénégal nii mu mel tey ñàkk diine moo fi nekk lii ngeen di jooy ci seen biir kër yi lii ngeen di jooy fi ngeen di liggéeyee li ngeen di jooy ci biir réew mi li ko waral mooy diine moo fi amul diine moo fi ñàkk léeg-léeg nag nga wax loolu gars yi ne moom kii kii us kii daal dafa doy waar ñun ñu ngi julli ñi ñu ngi ni toog juma mu ne diine amu fi koor gaa ngi ni léegi ñëpp woor ñu ne diine amul sëriñ yaa ngi nii nangam ñu ngi jàng Qur'an ñu ngi nodd ci jàkka yi allahu akbar allahu akbar kii mu ne diine amul diine ak nodd du benn diine ak julli du benn xanaa déggu leen gars yi ba ñu ñëwee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ñun gëm nañu yàlla am nañ diine yàlla da ko dajji qaalatil aarabu amanna arab yi nee nañ ñun de yonent ñun gëm nañ yàlla mu ne qul lam tu'minu du dëgg gëmu leen ndax ku gëm rek ngëm soppi ko ngëm day soppi nit aboubacar keroog ba mu gëmee soppeeku na keroog ba umar waxee ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah soppeeku na keroog ba ko ousmane waxee soppeeku na keroog ba ko bilal waxee soppeeku na keroog ba saad waxee lool ñoom ñëpp keroog ba ñu tuddee baatu seede yu góor ak jigéen da nga gis ndeysaan ñu soppeeku jàng leen histoire yaay Aïcha nee na yal na yàlla yërëm jigéen ñi ansaar keroog ba ñu déggee aaya muuraay wàcc na jigéen ñi dañoo demoon marché ñenn ñi dem rooti ca teen ba alxuraan daa di wàcc yàlla mu ne jigéen ñi na muuru am na ci ñoo xam ne ki de kenn ki demoon marché dafa taxaw ci marché ba yónni doomam ne ko dawal dem kër ga ngay nil ma kol bu ma muuroo mu ne ko yaay nañ dem ba kër ga mu ne ko damay ragal bu ma tegee sama beneen tànk ma faatu te jëfewu ma santaane yàlla ñun biñ déggee aaya yi ba léegi est-ce que soppeeku nañ keroog ba aaya wàccee madina ne bu kenn naanati sàngara innama alxamr wal maysir wal ansaab wal azlam rijisun min amali shaytan fajtanibuhu laallakum tuflihun ndeysaan sahaaba yi dañoo jël siw yi ak paan yeeg bidong yeeg bërigo yi amoon sàngara ñëw ba ci mbeddi madina këpp ko omar ne allahumma antahayna minhu ñun pare nañ ci ñun ba léegi pare guñ ci kon moo tax fekk dunduñu diine ji amuñu ngëm comme ñooñu dunu soppeeku dañuy nekk fii di julli juma koor jot ñu xiif ba sonn kori jot ñu julli tabaski jot ñu jënd suñuy xar lekk pare nii rek la ñuy mel dara du changé jullit buy naan sàngara jullit buy njaaloo jullit buy trafiqué drogue jullit buy jullit ba mu jeex noonu rek lu tax parce que ruux bi nekk ci jaamu yàlla gi luñ ci war a am moom la ñu amul lan la yàlla waxoon ci julli inna salaata tanha anil fahshai wal munkar doonu la yàlla waxoon julli day tere nit def lu bon benn waay bëgg na njaaloog benn xale bu jigéen ñëw ne ko yow rek laa bëgg a njaalool yow kese ndaw si dem kaw dem suuf waa ji bañ ne ko yow rek ndaw si ne ko loolu léegi yomb na boo tourné fii tourné waat tourné waat am na benn jàkk bu fa nekk boo fa jullee 40 jours boo ñëwee ñu njaaloo waa ji dem 40 jours waa ji def ko ci jàkk ji génn jubali këram ba mu am ay weer ñenn ñi ne ay at ndaw si di dox rek ba dajeeg waa ji ne ko ah kii du mu ne ko auzu billahi min ashaytani rajim kooku julli ji soppi na ko kooku julli soppi na ko ñun tey bu la benn xale bu jigéen fëggoon nga bañ a ubbi nga xëy di ko wax nga ne démb day diw def maa fëgg da ngay gis ku kontaan ne après nga ne ko ma bañ a ubbi mu ne yow dootoo texe alku nga boo yow dootoo dundu inna lillahi wa inna ilayhi ra lan mooy dund mooy nga njaaloo tey boo foroon kalpe jàmbur kalpe xaalisi jàmbur nga xool gis ci carte d'identité nga xam ko mu xam la nga ni damaa for benn ka xaalis bu bëri laa for ñu ne ñaata nga ni 500000 1 million 300000 laa for mais après damaa laaj ca borom ñu ne yow de yow yow yow pare nga billahi yow dootoo tekki yow yàlla may la nga naan damaa laaj ñun loolu wala allahu akbar fàttaliku ngeen waa ji lekkoon toolu jàmbur benn tàndarma tàndarma bi tax waa ji di wër ku moom tool bi pour ñu baal ko benn tàndarma bu mu lekk bi mu waree ba gis borom tool bi mu ne ko damaa lekk ci sa tool benn tàndarma jéggal ma waa ji ne ko duma la baal de yow duma la baal aduna duma la baal alaxira mu tiit toog mu ne ko leen rek mooy tax ma baal la am naa doom joo xam ne dafa tëx dafa gumba dafa lu dafa muuma ku jigéen la soo bëggee ma may la kenn bëggu ko utal naa ko jëkkër ba sonn kenn takk ko yow nag boo bëggee ma may la ko rek ma may la ko après ma baal la waa ji daal di xool mbugalu àllaaxira ak nattu àdduna xoola waa ji li mu xool yàlla baal ko mu takk soxna si ak mu dem àllaaxira yàlla dugal ko safara mu ne yàlla baal ma ma takk soxna si moo gën ëllëg yowmal qiyaam may dugg safara ndax benn tàndarma mu ne góor gi d'accord naa ñu may ko xale bu jigéen bi muy xalaat nag léegi nag ndeysaan nan lay présenté mbokkam yi nan lay yóbboo xale bu jigéen bi seen kër ci kanamu ndeyam ak baayam lan la mbokkam yi di jógee gis xale boo xam ne dafa tëx dafa gumba dafa luu dafa muuma jabar ju mel noonu ñibbi na seen kër waxatul papa ji ne ko bu fi naqarlu ndax waxoo tere woon nañ la nga bañ yaay ji ne ko bu fi indi benn problème waxoon nañ la bu ci dugg nga bañ ndax xam nga ne ku tëx lu gumba muuma munul dara yaa ko tey bu fi bu fi triste de ndeysaan toog ba guddi gi jot ñu muur xale bi indi waa ji taxut taru ko sax teeru taxul sax lekk ak moom ndax toog bu mu toog ndeysaan ku mel nii naka fu ma ko jëmee naka lay dundeek man waaye bi mu toogee ba guddi jot ñoom ñaar rek ñëpp ñibbi nañ bàyyi nañ leen seen néeg mu naan jabar ju tëx ju luu ju gumba ju muuma bu ko jëmee ne ma xaaral ma xool mu yëkkati luñ ko muur ci kanam gi mu gis xale bi di xool mu ne ko yow sa papa dafa waxoon da ngaa gumba mu ne ko wax na dëgg mu ne ah yaa ngi may gis mu ne parce que du ma xool lu xaraam waxoon ne da ngaa tëx doo dégg mais yaa ngi may dégg mu ne parce que du ma déglu lu xaraam bi ma juddoo ba léegi musuma koo déglu waxoon ne da ngaa muuma te yaa ngi wax mu ne musuma wax lu xaraam xam ngeen lu tax góor gi nangu may xale bu góor boobu doomam ci parce que dafa gis ku lekk benn tàndarma mu tax laa tiit mu tax laa tourné bàyyi sa tukki ngay war borom tool bi pour mu baal la mu xam ne kii jëkkër ju baax la mu may ko doomam ju baax jooju allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibaay وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تجعلنا جبنا فنضعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله